asalaamaaleykum amateur foot yi bu leen di fàtte di abonné wu ci seen bi may ko doole tey ci vendredi amoon na championnat tey nag championnat Espagne diggante Barcelona ak Séville mu nekk match bu neex mais aussi mu nekk match bu difficile si ñaar équipe yoo na ne ni bu ñu dajee du yomb tey tamit wane nañ ko tey seen seen jour bi wane na boppam muy kan Lamine Yamar mu nekkoon partant moom Lamine Yamar mu ngi gën di maxi ci équipe bi mais aussi mu ngi gën a di wane boppam ci équipe bi tey tamit def na match bu rëy Barcelona moo mujjee dóor Séville un but à mu nekk lu baax ci équipe bu Barcelona kan moo dugal contre son camp mu nekk Ramos seen défenseur bi. ancien défenseur Real Madrid tey nag moom mu dugal dañuy dem ci championnat Arabie Saoudi tey Al Nassr tamit wane na boppam Cristiano Ronaldo dugal na mu nekk staru al al Nasr mu nekk aussi international sénégalais muy kan Sadio maane tey ñoom ñoo doon deux buts un mu nekk lu baax si ñoom ñi ngi jege ci première place bi mu nekk lu baax si équipe al Nasr boo xam ne ni ñu ngi wone seen bopp ci championnat Arabie Saoudite te tamit Dortmund mu nekk championnat tey ci vendredi mu nekk championnat Allemagne mu nekk diggante Hoffenheim ak Dortmund Dortmund nag mu ngi koy dóor trois buts à un Kodjo tey tamit wane na boppam mooy international allemand wane na boppam Dortmund tey ci championnat Allemagne am na ñu ndam trois buts à un lañ dóor Offenheim mu nekk lu baax si équipe bu Dortmund moom loo xam ne nii buy joué ak yow du yomb mais buy football ak yow day dem ba mu jeex tey tamit am na nañu ndam ci kaw Offenheim dóor ko trois buts à 1. tey tamit Al Hilal mu nekk équipe bu club bu Kalilou Koulibaly ak Neymar ñoom tamit tey tamit wane nañu seen bopp ci championnat Arabie Saoudi ñoom ñoo dóor. deux buts à zéro mu nekk lu baax si international sénégalais muy kan Kalidou Koulibaly tey ñoom tamit am nañu ndam tey ci vendredi ñoom tamit ñu ngi doon joué am na ñu ndam ndam bu baax boo xam ne nii dina lañ gën a permettre ñi gën a jege ci podium bi mu nekk lu baax si équipe Al Hilal ñu jeexalee ko ci championnat de France tey ci vendredi diggante Lens ak Salzbourg Lens nag moo ko dóor un but à zéro te nag international sénégalais moom kan Nampalys Mendy mu ngi ci biir te tamit def na match bu rëy mu wane boppam mu nekk lu baax moom la nii bi mu ñëwee ba léegi moom tamit mu ngi wane boppam chaque match moom Nampalys Mendy te nag Lens moo dóor Salzbourg un but à mu nekk lu baax lance boo xam ne ni équipe la équipe boo xam ne nii bu tas tase ak yow du la may dara dee dem ba bu jeex te tamit wane nañ ko ñu dóor un but à mu nekk lu baas ñoom samay abonné bu leen di fàtte di abonné wu ci seen bi may ko doole moom lañ leen indiloon tey ci vendredi mu nekk championnat li